waaw cancer euh, mi ngi commencé di law ci biir réew mi Sénégal ndaxte boo ko xayma suñ xayma yi ñu am daanaka dinañ am ay ñaari junni cancer at mu jot te boo demee sax ëpp na ko ndax am na données yoo xam ne xëy na amuñu ko léegi cancer yi ci gën a fës mooy cancer yi dal jigéen ñi mooy cancer wu wen ak cancer wu col de l'utérus tey jii sunu xeex sunu mëbët mooy fexe ba en tout cas renforcer communication renforcer sensibilisation mais surtout def lu ñuy wax diagnostic précoce ndax yàlla may nañu tey jii am nañu ay médecins am nañu ay kàngam am nañu ay borom xam-xam am nañu ay garab tey jii boo demee ci réew mi la gratuité tey jii chimiothérapie mi ngi fi donc vraiment am nañu ay jumtukaay am nañu sax un vaccin contre le cancer du cole de l'utérus. ci wàllu waaw muy nag lu am solo ndax tey jii liñ bëgg mooy am registre du cancer boo xam ni dañ koy taxawal ci hôpitaux yi taxawal ko ci fépp fu nga xam ne dañ fay faj cancer ndax ba fi mu toll nii Sénégal dañ doon def ay estimation dañ doon def ay xayma lañ dañ leen def amuñu doon ay données réelles mais registre bii nii tey jii dinañu permettre ñu xam dëgg dëgg dëgg nan la cancer toll ci réew mi ñan ñoo ko am fan lañ dëkk lan moo tax ñu am ko ak ban cancer la ñu am loolu je pense que information bu am solo la parce que mbir boo ko bëggee xeex il faut nga xam d'abord doole bi fan la fan la toll naka la tëddee ci réew mi ñan ñoo ko am lan moo tax ñu am ko pour nga mun ko xeex kon yaakaar naa étape bu am solo la boo xam ne bu ñu fi jógee en tout cas dina yokk li nga xam ni mooy li Sénégal di def ci wàllu cancer. waaw dinañ ci jàppale bu baax ndax dina tax ñu xam malade yi nga xam ne ñoom la faj naka la ñuy fajoo fan la ñuy fajoo naka la seen faj mi tëddee. est-ce que ñi ngi wér est-ce que ñi ngi ñi ngi ngi am avancement ci seen faj loolu lépp dina tax registre bi ñu xam ko kon je pense que moment bu am solo la boo xam ne ministère de la santé en tout cas accordé na ci importance bu rëy ba nga xam ne tey jii bi ñu fi jógee en xeex Sénégal dina gën a ñoŋ dina gën a wér te dina gën a dëgër ci réew mi. waaw ñi liggéey mooy ñi nga xam ne la wax les registraires nekk ci hôpitaux yi. Euh, ñu ngi xayma lu ëpp ñeent fukki hôpital yoo xam ne tey jii dinañ fa am ku ñuy wax registraire moom la ñuy former tàggat ko jox ko outil informatique moom mooy saisir li nga xam ne mooy données cancer yi. dinañu wax kan moo am cancer est-ce que góor la walla jigéen la ban façon cancer la am ak fan la dëkk ak surtout moom naka la paj mi demee donc yaakaar naa information yi ay information bu am solo la parce que booy def planification. li gën a am solo mooy nga am information yi loolu boo ko amee dina tax sa faj gën a ñoŋ. tey waaw tey mooy le 31 octobre nekk fin euh, mois octobre nekk mois bi nga xam ne moom lañ jagleel cancer de sein mais li ñuy fàttali mooy xeexum cancer du rek mois d' octobre xeexum cancer 12 mois la sur douze mais octobre rose dafa nekkoon rek occasion pour ñu baral jéego yi pour ñu accélérer la cadence comme ni nga koy waxee. tey nag euh, mooy dernier jour bi ñu ngi préparé ak suñu équipe def xayma yi incha allah ci fan yu néew dinañ ñëw jox leen résultat yi. mën nañ wax ni am nañ ay junni junni doomu aadama ay jigéen yoo xam ne tey jii seet nañu seen ween seet nañu seen cole de l'utérus xam nañ ndax fan la seen feebar toll ndax am nañu wala amuñu mais surtout yokk nañ seen xam-xam ci wàllu cancer naka lañ ko war a moytoo. naka lañ ko war a saytoo donc danañ am prochainement statistiques yi ñëw jàkkaarloog leen yéen wax leen ko ci nu mu tëddee fii ci biir réew mi. perspective yi waaw perspective yi mooy d' abord dans un premier temps euh, def évaluation nationale mais surtout partager les résultat à travers une réunion boo xam ne dañ ko def seq ak acteurs yëpp nañ ko defee woon ci lancement bi noonu lañ koy defeewaat ñëwaat joxewaat résultats yi et vraiment. Sénégal jëm kanam. waaw weer bi nga xam ni moom la ñuy jagleel cancer surtout muy cancer ween ndax LISCA moo fi initié octobre rose depuis 2010 ñu nekk ci fukki at ak ñetti édition ci édition 2022 bii nag LISCA dugg na non seulement constitué na fii Dakar waaye dugg na ci gox goxaan ci biir Sénégal comme ni nga koy defee at yu ne dem nañu Popenguine dem nañu Ndaayaan dem nañu Diass dem nañu Diamniadio ak yeen ak suñu partenaire bi ñuy wax Dubai Port World foofu fermé nañ fa lu tolloo quatre-vingt-dix sages-femmes ci technique gu dépistage du bunt buntu bu tunjurukaay waaye li nga xam ni consulté nañ ko yëpp ci biir euh, weer bi ah des na sax journée wu tey ci cancer u col cancer u sein d'abord gisagum nañu juróom-benn téeméer yu teg euh, ñeent fukk donc ci ay jigéen waaye ñooñuy gis nag gis nañ ci ay deux cent soixante-dix-huit yoo xam ne am na ay anomali maanaam waxuñu ni cancer la ñu gisagum waaye gis nañ ci ay sikki-sikki yoo xam ne laaj nañu continuer diagnostic bi ci canceru euh, bunt bu tudd njuróokaay tamit seet nañu lu tollook euh, ñaar téeméeri jigéen ak 2500 euh, femmes gisagum nañ leen gisagum nañu tamit 178 amu anomalie yoo xam ni ba tey dañoo war a pousser diagnostic bi pour xool ndax loolu ñu gis ci bunt bu tudd njuróokaay bi lan la te ku ñu ci seet tamit. bu fekkee ni moyens yi mi ngi ci LISCA toujours dañ lay accompagner loolu moom moo tax population yi bu ñu leen woowee ñu ñëw wuy si sur le sur le dépistage. waaw maison de vie boobu moom dafa nekk kër goo xam ni kër gi nga xam ni moom mooy dalal ñi nga xam ni dañu am feebaru cancer te dëkkuñu sax am na sax ñu dëkk dakaar waaye ñi ci gën a am importance mooy ñi nga xam ni dañu jóge ci biir euh, région yi. fu sori te amuñu ku leen dalal fii ci Dakar ñooñu boo seetloo dama danga daan dem ci hôpital yi gis ñuy fanaan ci suufu escalier yi ci couloiru hôpital yi ndax amuñu ku leen dalal fii dakaar loolu mu nekkoon lu xaw a jafe ndax surtout bu fekkee da nga war a def radiothérapie nga xam ne radiothérapie da ngay ñëw di lundi au vendredi. pendant un mois xam nga kooku boo dëkkee fu sore amuloo foo ñibbi donc nangay ngay nga toog euh, fanaan ci hôpital bi ñooñu surtout ñoom ñoo tax ñu mébét pour tabax tabax maison de vie maison de vie boobu dina accueillir nit ñooñu ñu mën a dal foofu ñu mën leen jox ñu lekk jox leen ñu naan mën leen a transporter ñu dem hôpital pour def seen traitement correctement. waa am nañ ci yaakaar bu baax a baax parce que am na partenaire yu diggee pour jàppale ñu